asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yépp noo ngi sant yàlla sunu boroom cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem di dellu di ko tuubal ci mbooleem sunuy rëcc rëcc ci pas-pas ci kàddu ci jëf di dellu di ko ñaan mu nangu nu li ñuy jéemantu ci aw yiw ci pas-pas ci kàddu ci jëf di ko sant ci xéewalam yi nga xam ni daj na sunu jëmm ak ci lu nu wër yépp moom mi nga xam ni moo nu amal ci gannaaw ak ñàkk indi ñu ci kaw suuf bàyyi nu fi te di nu fi jële te di nu laajaat it li taxoon mu indi nu ci kaw suuf gannaaw bu ñu delloo ci moom noo ngi nuyu bokki jullit yépp gannaaw bañ jullee bañ sante sunu borom tuubal ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci mbooleem saxaaba yi àndoon ak moom jaayante ak moom ci seen jëmm ak ci seen alal te yàlla rekk a tax di ñaan ngërëmal sunu boroom ak leeram yàlla bu mu dañ di dottee ko ci mawlaana seyxinal ahmad al xadim yàlla na ko yàlla wommatal lépp lu mu tànn di siyaare ki toog ay jotaayam seex muhammadul muntaqaa sa borom fiq aw fanam te yokk ak wéram te dolli ko tawfiq ba naal yi ci lislaam yépp mu jëf ci lu kawe njortam di ndokkeel jullit ñépp kilifa diine yi ci réew mi yépp ak jullit ñépp ci bis bii nga xamante ni bokk na ci bisi sant sunu borom subhaanahu wa taala ndax bis la boo xam ni kat jaam bu ñu digaloon mu nangu ndigal la moom it kam yilif mu digal ko mu ñamu yilif muy soxnaam ak doomam ñu nangu ndigal la nangeen wu rafet suñ borom dajale leen ci ak ngërëmam ci bis bii la woon muy suñu maam Ibrahim nga xam ne bis bi lépp li mu wundu kat mooy nangu ndigal moom la bis bi wundu ci kilifa ci képp koo xamante ni am na kilifa nay nangu ndigalam kilifa gi njëkk ci nun ñépp nag mooy yàlla sunu borom subhaanahu wa taala moo nu bind moo nu moom moo nu melal moo nu moo nu kàttanal te moo nu fi indi waaye nag dafa am ñu mu doxale suñu diggante ak ñoom muy yonent yi yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam ak ñi leen doon lu ci borom xam-xam yi xam yàlla sunu borom te di ñu ca teete di ñu ca womat di ñu ca jëmale su ko defee bis bi ñu jàngate ci loolu di sant sunu borom mi nu may nu fekke woon daaw te sunu man-man sunu kàttan sunu xam-xam may nu fekke ren waaye lépp ci coobareem la ndax dund ba déwén kat ci loxol suñu borom la nekk mën na noo am nag suñu mébét yu bari ci suñu xol maa ngi yéene nangam maa ngi bëgg nangam su ma àggee béréb sàngam su ma tollee nangam su ma amee nangam waaye loolu lépp na fekk bakkan ba ne fa te bakkan ci loxol suñu borom la nekk kon moo nu fi bàyyi daaw ba nu fekkee ren yàlla na nu may nu fekkee at yu baree baree bare ñi fi jóge ci gannaaw bi suñu borom jéggal leen ñun ñu fi dese ñi di ko sant tey gën a góorgóorlu ci lim nu digal tey gën a teet lim nu tere nuy gën di dénkante ak tuub jëm ci yàlla sunu borom ci mbooleem suñuy rëcc rëcc ci pas-pas ci kàddu ci jëf di gën di dénkante it ak topp yàlla nekk ci ay ndigalam te teet ay tereem ci fépp fu ñu mën a nekk teñ boole ca it yéene ju sell ndax jëf yépp kat yéene moo koy àtte nun ñépp kenn ku ci nekk waaje na këram sol yéreem yu set yéreem yu bees wala yéreem yu rafet ak i dàllam ak léppam ñëw ci jullikaay bi waaye kenn ku ci nekk sa yéene rek la la suñu borom di fay kenn ku ci nekk ba ngay jóg di dikk yéene ja nga am rek moom la la suñu borom di jox bi julli gi juba it kenn ku ci nekk ka am ak ka néewle ku suñ borom dogal nga mën a am am xar kenn ku ci nekk dem na ca daral ga wala mu yaral ko boppam wala fu mu ko mën di jële indi ko ci këram ngir ak njabootam xëy na waaye nag su boobaa nag yéene ja moom la ko suñu borom di delloo lam ci yéene rek su fekkente ni koo xamante ni kat dafa xalaat ni bis bii sunu borom daf cee tegoon ab yonentam ab nattu digal ko mu rendi doomam mu nangu ndigal la doom ja nangu ko soxna sa nangu ko sunu borom it digal la ko nga fàttali ko loola am yéene jooju yi nga xamante ni kat sunu borom sunnaal na ko ci nun ñu di ko ci santale sunu borom ndax bis bi sant la ci jullit ñëpp waaye koñ la ne santale sunu borom mooy sunu maam Ibrahima mi yàlla digal mu nangu ko mu digal soxnaam mu nangu ko mu digal doomam mu nangu ko sunu borom wotteel leen ca ndigal loolee ngërëmam loola moom lañ ko ci santale koo xamante ni nag bi ngay def loolu sa yéene jëpp mooy loolu loola nga cay am waaye ki nga xam ni kat bu wutee am xar moom la muy seet mooy xar mu suur mu mën a jëfandikoo yore melub séeréer ah su boobaay loola rek la cay mën a am koo xam ne yeew sam xar mu mag ñuy wax diw day xaram mi ni mu toll ci koñ bii day moo fi ëppaleem xar su boobaay loola rek nga cay am bu fekkente ni da nga jënd xar mu seer lool it nga xam ne yéen a ja lépp it mooy ah diw day xaram moom jënd na mu seer rek na mu toll nangam la ko jënde loola it loola rek it nga cay am bu fekkee ragal sa soxna wala ragal sa njaboot wala ragal nit ñi wala bàyyi leen xel moo lay tax di def ca loola ngay def lépp it loola dong nga cay am doo ci jële leneen waaye ab jullit day fexe ba lépp lu muy jëf mu di ko jëf te jëmmi sunu borom subhanahu wa taala rek tax mu bañ caarax dara yéene ju sell jooj yi mooy li am solo ci ab jullit nu bàyyi xel ni kenn ku nekk ci nun bi ngay jógee sa kër ni ma ko waxee léegi ah laal nga ndox jël sa yére yu set laal ci sa parfum ñëw ci jumaa ji ngir lan yaa ngi bàyyi xel ñi lay xool kenn ku ci nekk yaa ngi fas yéene sol mbubb mu rafet sonn ca lool ca xotti ba dem ca téyër ba def ca sa yitte lam la laaj nga joxe ko ca ngir mën a teew ci bis bii rek loolu it nañu fàttali kenn ku nekk ci nun xam ne loola moom xooluwaayu nit ñi la waaye xol bi suñ borom di xool am na yitte juñ ca war a def kenn ku doon ci nun suñu yitte adduna li ñu ciy def nga xam ne ku ne la nga soxla yaa ngi seet fa mu am ak nan nga ko mën a amee ak la muy jar ngir nga mën koo wut yitte jooji la ñu war a def ci jihaadu nafsi mooy fexe ba suñ xol yi lépp lu yàlla gërëmul subhanahu wa taala mu bañ cee nekk ndax xolkat mooy xooluwaay sunu borom nit ñi nag kaw rek la ñuy xool te kaw nag munta àtte biir biir mooy àtte kaw ndax jëf ci yéene lay lay tegu ndax fukki téeméeri nit mën nañoo bokk di jëf menn mbir te kenn ku ci nekk yéen a jëm ca am bukkut ak sa morom te kenn ku ci nekk yéenam ci moom lay dellu mooy tax nag sunu borom mi nga xamante ni moom moo xam li nëbbu xam li feeñ nañ fexe ba li suñ borom xam te muy lu nëbbu ñu di ko bàyyi xel muy xol yi ndax suñ borom kat wax na ni yow doomu aadama bi yaa ngi taaral sa biti ngir nit ñi mën laa xool sàggane lool nag man fi may xool ci yow muy sab xol mooy tax nañuy xool suñuy xol bu baax te jëmmi suñu borom rekk tax di dénk saa bokki taalibe yi ci ndénkaan loo xamante ni sëriñ bi daana ko dénkaane ndax léegi kat nun ñu ci baree baree bari liñ jàppe sëriñ ak taalibe li ëpp ci nun taalibe yi aada rek lañ ko jàppe diw mii moo doonoon sama sëriñ wala diw mii mooy sama sëriñ wala moo doonoon sama sëriñu baay kon foofa laay dem wala diw day mbàkke la sant wala buso la sant wala faal la sant wala sii la sant ci réew mi yëpp sax wala ñas la sant wala nangam waaye la nga cay xool mooy la ci ëpp solo mooy diwa ko jur diwa ko jur diwa ko jur lool nag taxul nuy wut ab sëriñ ab sëriñ lay tax ñu di ko wut ni ngay amee jàngoroy bët amee jàngoroy xol amee jàngoroy nopp amee jàngoroy tànk amee jàngoroy loxo ak jàngoroy biir dem ci docteur boo xamante ni moo spécialisé wu ca loola bu dee ci wàllu bët la wala ci wàllu nopp la wala ci wàllu tànk la wala leneen lu mën di doon nga dem ca ngir sàkku ca saafara ab sëriñ loolu lañ koy doyee ci gan wet mooy ci sunuy xol rëy mi ngi fees dell ci sama xol maa ngi jàpp ni maa gën nit ñi maa ngi jàpp ni maa gën ñépp ci sama juddu wala ci sama alal wala ci sama taar wala ci sama njàng maa ngi añaane nit ñi ci li leen yàlla jox ci wërsëg wala ci daraja wala ci lu mu man di doon yëmuma ci iñaane ko ci sama xol waaye dem naa ba sax ba di ko wax ci sama làmmiñ ngir loola yoon wu ma mën a jaar ba loola deñ ma di ko def man kat maa ngi def fu ma toll maa ngi ŋàbb sama tànk di yàq ay diggante rek diggante bu jag ma yàq ko maa ngi ŋàbb sama làmmiñ di boyal ci gor yeeg julli di rek di leen tudd fu ñëkkut te la ma leen di tudde dara gënalu leen ca maa ngi njistal mboolem lu may jëf yàlla taxut nit ñi rek laay xool ñoo may tax di jëf ñoo may tax di bàyyi maa ngi jëf ba noppi di ko naw maa ngi jëf ba noppi génn jëf lu baax loo xam ne da nga ko war a nëbbu sa digganteeg sa borom rek ndax xam gi suñ borom xam rek doy na wadis keneen waaye loo jëf ci lu baax génn waxaat ko loo séq ak nit ci njëkk ak teraanga soo génnee waxaat ko bu leen nit dénkee kóolu téefam nga génn weer ko di xotti sutura yi bindee fi yooyu jàngoro mooy tax ñuy wut ab sëriñ kilifa gu mat kilifa goo xamante ni soo taxaw ak moom da nga yëg loolu na mu koy dindee ci yow ku ci ne nag yaa xam yoon wa nga koy dindee waaye yoon wépp du weesu tudd yàlla du weesu jàng alxuraan du weesu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yoon yañ lay awale loolu moom la ñuy tudde tasawuf léegi nag nit ñi ci bari aada lañ jël teg fa nga xam ni mën ngaa am kilifa goo xamante ni tey mën nga ni diw mooy sama sëriñ waaye mën ngaa toog at yaari at sax doo ko teg bët saa su ngeen tegantee bët la ngeen di séq moo di yëkkati naa addiye ji joxe naa sëriñ bi ñaanal ma ma dem nga xam ne tabarruk moom ngay def ci moom waaye def defoo ngir ni am na jàngoro yi ne ci man mu dindi ko boo demoon ci docteur ba dàq faj amee sa bët bi métti wala sa tànk bi métti wala sa nopp bi métti nga dem nuyoog docteur ba doo nga dem du tax dara wér ca da ngay toog wax docteur bi léeg léeg lii moo may métti mu am yum la laaj nga tontu ko mu bindal la garab ne la boo demee dee ko jël suba ngoon guddi bëccëg moo xam nam la koy defee ba jàngoro ji wér soo demee tàmbali jël garabee da nga gis bu yaram bi tàngoon mu tàmbalee wàcc métti du doon kii mu tàmbalee wàcc nit it soo àndee kilifa gu yàlla dogal muy kuy baaxal diir ba ngeen ànd da ngay natt ci sa bopp te bañ a xool ci moom ndax man bi ma àndeek moom léegi nan la rëy def ci man nan la iñaan def ci man nan la njëstal def ci man ndax maa ngi bàyyee te xel nit ñi wala déet ndax maa ngi jàpp nit ñi ma gën wala déet ndax maa ngi jàpp ni maa gën nit ñi wala déet su boobaa docteur bee ni muy toppe kii ci cëri sayri docteur baatin bi noonu lay toppe kii ci cëri baatin yi loolu it ñu maase bàyyi ko xel baax nit sooy jóg di wut kilifa looloo tax nga di ko wut waaye di su ko teg ci aada ci ak sàkk koo xam yàlla ak teg ci yoon tege ci yoonu yàlla ak àgg ci yàlla moo tax ñuy wax mooy tax nag sëriñ bi wax ni yow murit bi dafa bokk ci yi nga xam ni dafay gàllankoor kiy dox jëm ci yàlla mooy lekk gu bari ak nelaw yu bari al akla xallil wal manaam yaa murit wala tuxaalidi lesi lay sa yufit yow taalibe murit bi boo jógee ni man kat sëriñ Tuubaa mooy sama kilifa mooy sama sëriñ da nga koy déglu lim lay wax nga jàpp ko boo demee ci ab docteur yóbbu fa jàngoro mu bindal la ordonnance léeg-léeg sax mu mën laa may garab yi bind ca garab ga suba ak ngoon nga koy jël nga dem teg fële garab yi da nga deeg sa wopp waaye du la tax a wér boo naan dem naa ca docteur ba dikkit foo tëbee ñu ne nga ne man kat dem naa ca docteur ba dikkit te lam la sant defoo ca dara it ne la wóor na sa jàngoro mën ngaa tus ko rek moom li nu Sëriñ Tuubaa digal nañ ko bàyyiwaat xel bu baax te dellu ci am njàngaleem lim nu digal ci néew gu lekk ak néewi nelaw ak néewalit jaaxasoo bu bari boo xam ne du la dolli ci sa wàllu diine du la dolli ci sa wàllu xel mu rafet mooy mën a jariñoo ci àdduna man caa am yóbbalu àllaaxira loolu yi ku ne ci noonu it na ca natt boppam ndax digle ak tere suñu koy wax la ñuy digle suñu koy wax da ngay seet yow na nga ca def la ñuy tere it noo ca mel mu ni la na nga teet jëw ku bëgg a egg ci yàlla na nga teet jëw di tudd nit ñi fu ñu nekkul ci loo xam ne du leen gënal ku bëgg a àgg ci yàlla na nga wattandi ko loolu kon képp kuñ naan kii xam na dara ci yàlla wala am na dara ci yàlla wala kilifa diine la ngay toog ak moom muy tudd génn kenn benn jaam bu man di doon ci ludul noona na nga ni ko fa ñukk xam ni koo kee day melawoo mu yore bukkut ak melaw yi Serigne Touba jàngale. nun ñi bëgg a dox rek jëm ci moom moom yàlla sunu borom waruñoo tudd nit fu mu nekkul. waxuma laa ki ñu wax ni yow da ngay defar doomu aadama yi mooy tax képp ku bëgg a àgg ci yàlla na ngay wattandikoo jëw jëw ni ko alxuraan misaale sunu xel damay ragal ni da ci dut xalaat dëgg dëgg xalaat ya ca war ci ñi mel ni man waaye ku ci ne na natt sa mbokkum nit mu mën a doon nga xamoon ko mu génn àdduna ñu denc ko ba mu am ñetti fan imagineel néew bu am ñetti fan ci bàmmeel ñu génne ko nga war caa jël sa loxo di sex ci sa làmmiñ ci sa gémmiñ loolu jullit bu ne wéetal ci sa kaw lal wéetal ci sa néeg nga xalaat loolu ndax dara mën na la koo tax a def ci kaw suuf ku natt loolu ci sa bopp nag dana tax nga wattandiku jëw boo ko nattee ci jëfandikoo ko nga nattandiku yow bu doon yow la ñu denc la ci biir suuf ba nga am ñetti fan nit war la faa fekk di coppati ci yow dara di sex loolu nga bàyyi ko xel nga xam ne doo ko def kenn ni nga bañee ñu def la ko na nga sa taqoog tudd yàlla ci suba yi ak ci ngoon yi ci guddi yi ak ci bëccëg yi tudd yàlla mooy ngànnaay liy dàq seytaane ci nun ñépp kon lii nu sëriñ bi digal nañ koy bàyyi xel bu baax bokk na ci liy dox diggante nit keek bànneexi topp yàlla topp yàlla dafa am ay bànneex yoo xamante ni ki koy def te saxal ko te yàlla tax dana dem ba ci yëg bànneex boo xamante ni du ko mën a misaal kenn kenn kenn ku ko dund na mu ko dunde ndax am na ñoo xamante ni tey kat mën nañoo dawe fii ba Dakar waaye boo leen bëggoon a julliloo fii ñaar ràkk dong duñ ko def julli duñ ko def mukk nit ñi kenn ku ci nekk yaa ngi toggoo boo xëyee coono yu méttee méttee méttee méttee méttee te waxtu waxtu tisbaar mënut a weesu juróomi minute lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg juróom benn minute juróom nga sëlmal te nag mën ngaa yendu ci fukki waxtu ak ñaar yoo xamante ni da ngay dang-dangi rek yaa ngi sonn ci lu ne waaye taxaw julli rek doo ko def ndax amoo ci benn bànneex amoo ci benn yëg-yëg waaye jaamu yàlla dafa am bànneex am na benn nit yàlla boo xam ne nit ki jaamu yàlla fekk ëggut ci ban di ci yëg bànneex kem bi mu yëg ci bànneex xaada yi yi nga muy lekk muy naan muy nelaw ak ya ca ajoog yëpp ëggagut fenn mu ni bànneexu topp yàlla nit ki bari ak lekk daf ko koy xañ lekk bu ñuy wax bari lekk saa bokki séeréer yi daanaka duñ xam suur dañuy jëfandiku ba sonn rek bàyyi waaye dañuy bëgg nag soo lekkee lu yam nga bàyyi nga xam ne li ci des ci ndab li dana la wóor ne soxla soxla nga ko waaye nag nga bàyyi ko fa ngir yàlla di tàggat sa bopp ci loolu mbir moom dégg moo dégg ñu di ko waxtaane ci lu baax nag nit xëyut xëy àgg ca waaye da ngay def ndànk ndànk di def ndànk ndànk di def ndànk ndànk ba àgg ci fa xamante ni ku xamutoon fa nga tàmbalee da koy jaaxal gone gi nga xamante day taxaw fii ca kanam nga xëy xëy rek ñu ne la diw mokkal alxuraan diw ngay def conférence ñëwal teew nga ñëw teew fekk gone gi di tari tarin wu rafet ba dem doyo dalay jaaxal waaye gone gi njëkkiwut foofu ci baala tàmbalee benn baat teg ci siin teg ci mimara di ko def ba wattu kaamil bi yëpp mën koo tari waaye ndànk ndànk la koy def mooy tax jikko yu baax yëpp it léeg-léeg jullit bi mënta xëy xëy àgg ca waaye nag jullit bi waxtu wu ne day jéem di ca yokk saa su xëyee te lépp luy wàññi loola it mu di ko daw bokk na ci liy xañ nit ki barkeb dund bari ay nelaw nelaw moom ku ko bari sa adduna du jag waaye sa àllaaxira du jag ci li ci ëpp ndax kii nelaw moom ñaare du fàggu ji lu lew lu mu mën a dund dundal ci ak njabootam wala lu mën a taxawoo yaari way juróom waaye nag jaamu yàlla gu koy musal ëllëg it du ca nekk ndax nelaw yu bari jaxasoog nit ñi jaxasoo bu bari day jur ay lor ëllëg yowmal xiyaam ndax léegi kat jamono ji ñi mën a jaxasool bariwul de jataay booy toog boo xamante ni lu lay dolli ci sa diine rek ak lu lay dolli ci xel mu rafet rek nga fay dégge yombatul de jataay boo dem lu suñu yoon nekkul rek la ñuy wax dée nga nangam dée nga li xew dée nga nangam dée nga li xew nee nañu boo demee loolu rek ci la nit ñi nekk seen dund gépp ci lañ koy jeexal te loolu lu mat a daw la nit day jaxasoo ku koy dolli ci diineem nit day jaxasoo ku koy dolli ci xel mu rafet nit day jaxasoo ku koy dolli ci maandu nit da koy jaxasoo ku koy dolli ci ak rafetal ci digganteem ak boromam ci digganteem ak bindeef yépp bari ak jëw ci lu dul tuub dellu ci yàlla nit sooy wax nit ñi lu dut noona tuubalal yàlla sunu borom ndax moo bind nit ñi nit ñi di ay njabootam waaye tuubalal nit ñi it ñi nga doon jëw baril ko nag ci lu dut ak tuub dana génne tawxiit tawxiit dana génn ak wéetal yàlla ci nit ki balaa génn àdduna wal xiyaasu billaah te loolu lu mat a bàyyi xel la wa kasratul qiibati min xayri mataab yaxruju tawxiidul ilaahi yaxruju tawxiidul lazi siwaaw xaab baril ak jëw ci lu tuub ko dana génne wéetal ki nga xam ne ku dut moom am na ayib moom yàlla sunu borom ku dut yàlla rek am na ayib beneen mbindeef bu dut yàlla rek am na ayib yàlla rek mooy aji mat ku dut yàlla matoo lii matuk doomu aadama nag li ngay def ci rëcc rëcc sa diggante ak sa borom ak li ngay def ci rëcc rëcc sa diggante ak sa morom nga di ko tuub tuub gu sell te am yéene bañati caa dellu te tawxiit nag sëriñ Tuubaa dafa wax ni ku ñuy yoor ci biir bàmmeel xam-xam boo fu mën di yóbbaale te xam-xamu tawxiit jiituwu ca du la da jariñ dara boo fa yóbbaale tawxiit te benn xam-xam topp ca du la lor dara ndax tawxiit rek mooy li am solo kon nit ki lay tax mu wéral tawxiitam na koy bàyyi xel bu baax te ak mujj yàlla na nu sunu borom boo ko defal mujj gu rafet ndax àdduna it ak mujj rekk a ci am solo wolof day wax ni kuy dund te déegoo la waxub lu ne nga la waxub lu ne nga lu ne mën na laa dal gannaaw yaa ngi dund ànd ak sam xel ànd ak sa bakkan lu ne mën na laa dal léeg-léeg man ngaa njëkki ak am tuuti gis ci say wet ñu xaw a yàlla xaña xañandi leen xañandi leen mu yow nga amandi nga bëgg a xeeb ñooña ngir sa am am te yow day xamoo sa am am bii fan ngay mujj ak moom borom ñàkk gi xamoo fan lay mujj ak moom te fekk ne kat yow yaa ngi jóge ci seesub am jëm ci seesub ñàkk kii ngi jóge ci seesub ñàkk jëm ci seesub am te yow xamoo koo ci dara ndax yaa ngi dox bari na loo xamante ni suñ borom àttan na ko ci ñun ñi ñëpp ba noppi ku ci ne da ngay dox ba àgg ca rek léeg-léeg nga gis nit suñ borom teg ko nattu nga bëgg koo xeeb bëgg koo ayibal bëgg koo ŋàññ bëgg koo xas fekk kookee mi ngi jóge ci seesub nattu jëm ci seesub pay yow yaa ngi jóge ci sees ba nga toogoon ci ñàkk nattu jëm ci nattu boo xam ne dootu ci jóg mukk te ngay tëdd ba keroog ngay génn àdduna te xamoo koo ci dara ndax ku ne ci noonu ñàkkut koo xam koo xamante da nga koo xamoon ci ak wér gu mat sëkk ak kàttan gu mat sëkk muy dem di dem di dem ba mu yàgg fa mu tëdd da lay wóor ni génn àdduna moo ko fay jëlee jeexal na ci àdduna mi ngi ci biir àdduna waaye jeexal na ci ba noppi amutut lu muy xooli ci biti amutut lu muy dégluti ci biti amutut tànkam bi fu muy doxati jëm ci biti amut fu mu biti bi daal amutut ca wàll te yow xamoo loola lan mooy ci sëb cër nga yore sa ñaari gët yore sa ñaari loxo yore sa ñaari tànk nga romb borom koo xamante ni suñu borom dogal na kat ay tànkam neexut mbaay bëtam neexut mbaay loxoom neexut wala kàttanam wàññeeku na nga di ko xeeb ngir am nga dara ci wér wala am nga dara ci lu nur am-am fekk kookee day la ko yàlla dencal yow bu la ko waroon nga bëgg mu teg la fukkam mooy tax jullit buy dund te génnagul àdduna la waxam lu ne nga bul ndokk sa mbokkum jullit mukk ci lu ko dal lu dal sa mbokkum jullit ci safaan ñaanal ko suñ borom teggeel ko ko bu dee ci boppam la wala ci alalam la wala ci njabootam la lu ab jullit amit yéene ko ko ba mel ni yow yaa ko am ab jullit sunu ngëm du mat mukk mukk mukk mukk feeg demuñu ba képp ko am xéewal ku mën a doon ñu ne la diw mii xéewalam gii am gii mu am na dolleeku nga ne bisimilah feeg aggugoo foofu ne la wóor na sa njullit des na ndax yow alal joo mën a am am am boo mën a am daraja joo mën a am foo toll da ngay ñaan yàlla mu yokk da ngay bëgg mu yokk da ngay bëgg yàlla sàmm la da ngay bëgg yàlla aar la noonu nga ko bëggale sa bopp feeg demoo ba bëggal ko jullit ñëpp sa ngëm mat na kenn ci nun ak ngëmam du mat ndar li mu bëggal bopp daf koo bëggal jullit ñëpp mooy tax kenn ku nekk ci nun war nay natt xolam ci digganteem ak jullit ñi sa digganteeg say dëkkandoo sa digganteeg ñëpp ba xam yow nit ñi li ñu am yaa ngi leen ko yéene wala déet wala ndax yaa ngi bëgg loola dañ wala déet ñi ëpp ci nun lu sa mbokkum jullit am nga ne lu tax boo yeexee fii la ko jële dangaa xamut rek waaye day def nangam dangaa xamut waaye day wax nangam yoon woo mën a am ku am daraja nga ne naa fexe ba xajamal ko naa fexe ba mu dellu ci suuf naa fexe ba nangam naa fexe ba nangam loolu fan nga ko teg waaye suñ borom moom mu bind te moom te melal te kàttanal nam la umpalee kookee ba mu nekkee ci toq ndox ci biiru waajuru mu jigéen mu ko fay tenq di ko fa tenq ci lumbu dareet ba def ci ay suux ba def ci ay yax ba def ca la ca ànd lépp ba indi ko ci kaw suuf ba mu kàllafum jëmm fa mu jaar ak moom ca foofee ba keroog muy génn àdduna lu mu namm ci moom dootee ma am mënootee ma am ci aw yiw mooy taxit ab jullit na gëm yàlla dëgg dëgg gëm ko bul ragal kenn ku dul yàlla bul yaakaar kenn ku dul yàlla bul wóolu kenn ku dul yàlla ndax yàlla fi mu am ak yow kenn dafa awut ak yow ku mën a doon mooy tax nanu wakkiirlu ci yàlla nanuy wattandiku añaanante ci sunu biir sunu waxtaan li ci ëpp loolu lay doon ndax kañaan jikko la joo xamante ni munta ànd ak nit ki du am jëf ju baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kañaan day lekk jëf ju baax ni sawara di lekk mat kon nañu xoolaat suñuy xol bu baax di ko fóot di ko raxas ci suñu digganteeg jullit ñëpp lu waaye am nu yéene ko ko ndax kat boo yéenewut nit ki li ko yàlla defal foo xëy suñ borom daf ko yokk sa bët di ci dal nga ne ci sawara wi tàkk te doo ci mën a jóg mukk waaye lu jullit ñëpp am nga yéene leen ko ci sa xol bànneex la ak mbégte gis nga féexu xol aljana dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy mucc ci añaan ndax da ngay féex ñu bari coono yi leen dal yi leen ko teg añaan rek la ndax kañaan mooy jur rëy rëy dana jur kañaan waaye añaan it dana jur wax lu dëgg dana jur njistal dana jur jéem a yàq nit dana jur yu baree baree bare waaye yooyu yëpp it day fekk moom yàlla noppi na ci ab jaamam kon réere gi ñuy réere sunu mucc war naa tax nun ñëpp ñuy def ndànk ci yu baree baree baree bare bare ndax yaa ngi dund jëm ci kanam te xamoo li ci kanam lu mu ndax dañooy dox di dem rek de dañoo dugge ci mbedd adduna di génn ci meneen mbedd ma ca des dugg nañ ci bunt di génn ca beneen bunt ba diggante fii ngay génn ca beneen bunt ba nag yaa ngi dox di dem ndax am na ñu la jiitu woon léeg-léeg nga gis koo xam ne moo la mag nga gis fi mu jaaroon fépp ci kàttan ak lépp lépp ñu di la ko nettali ñu xëy ñu ne la ah diw de ma nga tëdd man de xawma lu ko dal tawat jade nangam tawat jade nangam ku yoroon ñaari tànk ñu xëy suñ borom dogal ab soog am ñu dagg tànk wala ab soog am ñu dagg loxoom wala leneen ak leneen ak leneen lépp gaar te yow yaa ngi dox te xamoo yooyu yëpp lan moo la ciy gaar ndax lii dal doomu aadama moom gannaaw ci doomu aadama la dal rek na la wóor ne yow ngay doomu aadama mën na noo dal nun ñëpp mooy tax nañuy bàyyante xel bu baax di yërëmante di dimbalante di suturaalante di jàppalante te yàlla tax ku ñu wax Sufyaan Sawri yi dafa génne Màkka di xaj waaye di jooy jooy yu méttee méttee métti guddi ak bëccëg ci war waay bi mu war am ku ne ko waa yow lan ngay jooy bu dee ak mooy yàlla goo mooy yàlla moo la tax di jooy bul ko moyete tuubal te bañate mooy yàlla mu ne ko bàkkaar moom dafa mus ta toq ci samam xel sax ba ma koy def du bàkkaar bu ndaw du bàkkaar bu mag mus ta toq ci samam xel ba ma koy def kon mel ne loolu taxu koy jooy loolu taxu may jooy mu ne ko bu fekk waaye nag li ma tax di jooy mooy ragal mujj ragal ci sama mujj damaa xamut ci lan lay mujj te loolu ku ne war na laa doy xalaat ci sa bopp damaa xamut ci lan lay mujj jullit bu ne ak mbindeef bu ne war nga di ko xalaat foo toll ci lan ngay mujj waxuma la àllaaxira sori na de bàmmeel sori na de waaye ci dund ko adduna gii rek da nga di gis ko fi jànkonteeg loo xam ne mënu su ko misaal day def nag doomu aadama moom lu ko sori du ko mën a xam du ca bàyyi xelit mu ne ko ndax damaa gis kilifa goo xam ne nun ñépp dañ doon jëli ci moom xam-xam xam-xamu baatin ak xam-xamu zaahir xam toog na di jàngale ñeen fukki at yoo xam ne yépp daf koy jàngale du jóg sa jàkk ji mu kiit dëkkaale na ak boroomam ci baytilaayil xaraam ñaari at yu mat sëkk yoo xamante ni jógut ci baytilaayil xaraam nit ñi daanañ sàkku ci barkeem di ñaan ci barkeem suñ borom di taw waaye bi mu faatoo ñu won ko ko ci gént dafa gis ni xar kanam dafa jublu sow ci niñ ko denc woon xar kanam bi jublu penku dafa gis xar kanam bi jublu sow ngir njëkk muy génn àdduna bokkaale na sunu borom loolu lu mat a bàyyi xel la nit mën naa tëb jug jëm ci lu baax xëy xëy nga def mu mel ni kii nga xamoon ci lu baax du moom ngay dégg ci moom ngay gis ci moom muy def lu dul noona ngay dégg ci moom muy def lu dul noona mel ni jóge ci loolu complètement nga xam ne bu doon mbubb moom sol la day mel ni lu mu summi teg fële dootoo ko xàmmeeti te loolu mu ne nag ragal ak mujj nun ñëpp war nañ ci tiit di ci bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kuñ ko masaa wax kii ku ragal yàlla la luñ ko tagg tagg tagg tagg fi moom day wax ne nan ngeen ko fekke muy fàttali ko dee nan la mel ci fàttali ko dee buñ ne ko moom lu njëkk mu di ko waxtaane mu ne fa ngeen ko teg du fa ab jullit dëgg mooy koo xamante ni day sax ci fàttaliku ëllëg di ko bàyyi xel di fàttaliku li dox digganteem ak ruuxam di teqalikoo ak jëmmam ndax lu ne xaj na fi lu ne mën na fi am bul xeeb kenn ngir sa judd bul xeeb kenn ngir sa taar bul xeeb kenn ngir sa am am bul xeeb kenn ngir sa jàng bul xeeb kenn ngir sa daraja yàlla moo séddale nun ñëpp nañ xam ne yàlla moo séddale ku ne it la ko yàlla jox ànd ca ndax ànd nga mooy tax nga rafet ca yow ndax yàlla moom la mu def rafet na ba noppi nga ànd ca ak nga ñàkk ca ànd loolu la rafet na ba noppi sax ñàkk ca ànd moom sax ñaaw lay wane waaye du wane la yàlla def ni dafa jekk wala dafa jekkadi wala dafa ñàkk rafet nuy yërëmante te yàlla tax wayjur yi nanuy delloosi ab yar ci njaboot gi lu am solo la ndax waxtu wu ne ngay dégg kuy joteeg wayjuram ak a jàppanteeg moom ba mu tollee ci xam nga war koo yar ci diina yaroo ko ci nit ki loo ko li nga ko yar rek wala lam ne rek ca lay mën a ne bu fekkente ni sa doom dafa màgg nga dugal ca daara ji mu xaw a dër tuuti nga rocc ne ko demal jàngi métier ngir yàkkamti njariñ su demee ba manit du la jariñ ndax jàngoo jàngaloo ko yaruñu ko su ko defee fitna doo nga lay jur boo yàkkamtiwut nag bàyyi ko ja ñu jàngal ko yar ko su boobaa def ci moom ak defaru su boobaa yow la nga ca bëgg lépp da nga ko ca am la ca yàlla bëgg da dana dana am waaye boo xañee yàlla cëram sëb cër na la wóor ni du mën a sotti kon noo ngi ñaan sunu borom nag mbas mii nga xamante ni mooy li am ci réew mi sunu borom teggi ko ci jàmm ak salaam nu gën a bàyyiwaat xelit ndénkaanay docteur yi ñun ñëpp ñu ma sa bàyyi ko xel ndax gan gu dikk te xamagoo kañ lay yeeweeku ah seet na ngay dëkkeek moom dana ca baax léeg-léeg ñu ne ah mag ñi la gën a yab gone yi tax ñoom ñu jàpp ni moom lu leen neex war nañ koo def déedéet bul lor sa baay bul lor sa maam bul lor say mag mooy tax nañ ko bàyyiwaat xel bu baax xëy na misir yi état bi dindi tax na nit ñi loolu bëgg a woyof ci seen bopp ndax defe ne lu woyof la déedéet ndax feebar bi réew yu mag yi mu am ñu ci bari jàppaat nañu deuxième vague bi day demaat ci ñoom ndax loo xamante ni dikk na te gisagun garab gu ko mën a faj wattandiku dafa bokk ci gëm yàlla sabablu dafa bokk ci gëm yàlla loolu ñun ñëpp ñu maase bàyyi ko xel di bàyyi xel di wattandiku di gën di dimbalante ci sunu biir di gën di labirante ci sunu biir te jëmmi sunu borom rekk tax sunu ayib yi bopp nanuy doy waxtu wane nañu koy waxtaane nit ki ayibam moo koy lor waaye ayibi jàmbur yi du ko lor nit booy jaamu yàlla da nga koy denc ndax bu loo mën a mën a jaamu yàlla te sëgg ci deri nit ñi li ngay jëf ci aw yi ñëpp yaa ngi koy joxaat nit ñi di jël seenum safaan ab jullit day nangoo jaamu yàlla waaye day maandu day rafetal waaye day rafetal njortam ci mbokkum jullitam ab jullit bul ñaawal sa njort mukk ci sa mbokkum jullit ku dikk di la wax ci sa mbokkum jullit ab safaan ñàkkut ne yow am na yiw woo ca xam booy wax rek waxal ca yiw wa kooku lu mu doy di doy di doy ba mel ni man du ñàkk nga xam bis lu mu mas a def ci lu baax loo mën a wax wattandiku dégg naag foog nañoo diw bett na maag diw lii yooyu yépp ab jullit du ko def deel rafetal sa njott ci sa mbokkum jullit deel suturaal sa mbokkum jullit deel dimbali sa mbokkum jullit te yàlla rek a tax nañuy suturaal te nañuy dimbalante ci jëmmi suñu borom rek a tax yàlla suñu borom def barke ci nawet bi te def ci xéewal te def ci ak jàppandal te muurloo ko ci anam gu sedd nañu fonkaat kaw gi ku ci di baykat wala fa nga dëkk ab liggéey man faa am na nga ko fonkaat bari na ñu ne ci biir taax yi day bu ñu xamoon xéewalee suñu borom di defe foofee ak ya fa nekk nii danañ delluwaat ci seeni gent na seen siidi maxtaar waxoon den den seen genti maam yi ku ci amu gent maamam na ko dem fonki di fa jaamu yàlla di fa liggéey ndax nun ñëpp mënuñoo ñabaloo ci kaw ci biir taax yi ku ci ne am na foo foo xamante ni xëy na jóge woon nga fa te delluwaat fay léeg-léeg am na ñu ko ci yàlla jàpp ndalal ndax adduna ni muy doxee ku ci suñ borom yee dara dara dara fenn du sori ci yow te yu bari dana maase ji ci biir réew mi foo doon xalaat naa nu yoon du fa yegg wala ndox du fa yegg yoon ak ndox ak lépp mën na faa dem ba àgg fa te su boobaa ñeneen ñoo koy yitte ñeneen ñoo koy jël yow ngay xool naan fii de sunu gent la woon fee de doonoon sunu dëkk fee doonoon lii fekk yow jóge nga fa bu yàgg yaa ngi dëkk feneen loolu it nañ koy bàyyi xel baax liggéey ab jullit fu mu mën a liggéeyee man faa téye ak ragal yàlla am foofu wurtu sori ci moom na ñaan yàlla defal ko ca barke ak tawféex ak sutura maa ngi dellu di tuubal yàlla sunu borom tey tuubal jullit ñëpp tey baal xàq ñëpp tey baalu xàq ñëpp tey ñaan sunu borom boo leenu jéggal yàlla na nu yàlla may nu fekke at yu bari te ma ànd ak wér ak wérle ak mucc ak muccule yàlla sunu borom dëral sunu tànk siraatal mustaqim te musal nu ci mbooleem ndog ak pakk ak musiba ak balaa te dox suñu digganteeg seytaane ba fàwwu dajale nu yiw adduna ak yiw alaxira musul nu ci lori adduna ak lori alaxira te bokk nu defal mujj gu rafet nun ñëpp kenn ku ci nekk lay ak bëggam ci lu nëbb ak ci lu feeñ lay xaajoom ci lu nëbb ak ci lu feeñ yàlla na ko yàlla fajal te jàppandal fajin wa kenn ku ci nekk lam ragal ci boppam ragal ko ci njabootam moo xam tawat la moo xam musiba la moo xam nattu la moo xam balaa la yàlla na ko yàlla sori loola te dox diggam ak loolee zahiran wa baatinan kenn ku ci nekk la mu yuutu yàlla na ca jot ci jotin wu sedd te jàppandi yàlla nu yàlla jéggal ba faw yàlla nu yàlla yërëm ba faw yàlla nu yàlla yiir ba faw te dott ci nun ak xéewalam ak ngëneelam ci mbaaxam ci yërmandeem ci tawfeexam ak suturaam yàlla nu san borom bokk defal mu gërëfe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh